da ngay seet lii rek. mënu non non dafa ñaaw. fu ñu mës gis assemblée bu yokk man na président. nañ ma ko wax. xëy na Macky xam na ko. déedéet député yoo xam ni lii neex Macky Sall rek. Sénégal yi dañoo sonn ci député. bëgg fi nekk ba décembre 2024. duñ ko nangu tey lii dafa sax ñaaw. président bàyyi li nga bëgg def. président. naam. affaire nu mu fa demee nii. pouvoir bi day corrompre ay ses propres députés. yow loolu si wóor. moi je suis je suis témoin. yow noo daan def. ay mallette d'argent lañ daan andi groupe parlementaire. la ilaha illallah. après. jubóo député yi ñenn ñi si bureau président du groupe. léegi xaalis bi jox pour lan la. ngeen jox xaalis pour pour lan. pour ñu voter. intéressé wala xaalis moo leen intéressé. xaalis moo intéressé. léegi ku àndul ak yow nag. daañu leen. jënd. ñu mel ne Sonko lànk nag nooy def ñoom. ñu nga xam ne dañu xaw a dëgër bopp ñu tiital leen. mënuma xoqatal mënuma tiital. ndayam ko la nax. ñu leen tiitale. wala wax ak yow. lu di wax. yow ñoo àndoon dégg nga maam depuis man ma soxla lii xanaa doomu et cetera. Eh, waay sàmm. kon nag lii moo fa donc façon yëpp a ngi si. ba sëñ Bass jàppale. ñu labale leen labale gu métti. ndeysaan sëñ bu sell bi li lépp waxoon na ko. maa ko njëkk a wax man.